ñuy wooyee FM vingt 24 ñu nekk beneen kuréelu politique goo xamante ni ñoom dañu jug ngir jàppale kii di président Macky Sall wante tamit fexe ba dakkal bépp yëngu ñeneen ñi nga xamante ni ñoo di FM 24. na ñu bay jaaxaan ñu bañ kenn dañu manipuler dañu dugal suñu ñàkk fayda bu ñu toppee ñi nga xamante ni tey amuñu moom ñoom ci seen bopp seen degré de conscience dafa des bu ñu dugal nit ñi ci jëye ñàkk fayda la. nee nañ nag ci komba politique bi ñu sóobu seen yitte seenu gëm-gëm moo jug taxaw ngir boole ñëpp ci seen xeex bi ndaw ñi jiitu ci. damay woo jeunesse bi di woo population Sénégal yëpp nañu nekk benn ñu am fulla surtout téye suñu njaboot loolu mooy wax ji. ci li leen tax a jug mandat président Macky Sall tamit bokk na ci ñoom ñu ne lu ñu bëgg rek mooy président Macky Sall demaat ci jongante yi di am ci atum 2024 lu ñuy wax question de morale avec la loi ne la constitution ne gère pas la constitution du gérer morale constitution du gérer pulsion constitution du gérer sentiment constitution ay texte lay gérer ak ay loi ay règlement FM 24 niroog F24 ci ndaje mi ñoom wax nañ ci mbirum Ousmane Sonko ak manifestation yi appel à un mortel combat appel à l'instabilité ñun on n'est pas dans ça manifestation yoo xamante ni sax ñooma ñaawlu nañu ko bien bi nga xam ne ñu ñoo ko moom mu nekk un bien de la dañ ko war a mais waruñ ko yàq. nee na ñoom nag su amaatee dinañu génn lijjantil ko seen bopp ngir dàkkal bépp yëngu-yëngu.